salaamaaleykum cher internet euh, ñu ngi fi Guédiawaye particulièrement zone 3 zone 3 seet si ASC Gounass muy préparer demi-finale am ak euh, ASC Ceddo bon ñu gis ñu xaar ñu xool président bi lan la ñuy may si demi-finale bi. salaamaaleykum président euh, tur la. maaleykum salaam maa ngi tudd Demba Konaté. Demba Konaté yaay président ASC Gounass. waaw maay ASC président ASC Gounass. nan ngeen di préparé seen demi-finale. waaw gis nga comme ni ko gisee ñu ngi koy préparé sereinement. ñu koy préparer sereinement di ko comme niñ doon waajee yenen match yi rek bon di ñaan yalla yalla may ñu ci ndam waaw soobu yàlla. mais euh, président euh, est-ce que équipe bi paré na. waaw sha allah ñu ngi sante yalla bu baax je tous di boire ñu ngi sante yalla bu baax alhamdullah xalé ñu ngi ci forme bon am nañ confiance vraiment ñu ngi sante yalla bu baax mo président dañu am ñu seetlu ci nawetani ren. moy que ni dafa bari violence trop. Mm-hmm. bon lan ngay wax ci violence ak lan ngay wax ci sa waa quartier ak euh, say supporters. waaw euh, violence mom bokk ci sport dafa di li nga xamné ci da dugg ci peut ku xamul sport mo ci def violence sport bu bolé wul warul takalé wax deug fa yalla mais yalla dafa def ni dafa am ñu xamul wala ñi nga xamné bon peut-être dañ ci dugg di ci lax lenen ñoo ñoy faral di énervé mais ñun ñu ci sonu deug deug deug xam nañ ni exemple euh, njëriñ bi ci dirigeant am ba jox ko respect bon vraiment ku ci né bu préparer il faut kenn ñak par force. il faut mu am kenn ku ñàkk yàlla loolu la dogal donc message bi may lancé mooy nit ñi xam ne foo la yi partenaire lañ ci benn bu ñu bu ñu kii parce que boo amatul adversaire doo fubal il faut nga respecter sa adversaire xam ne match yi benn jour la li yëpp ay jaar jàll la gars yi moytu violence bi amul benn njëriñ parce ñooñu dañuy yàqal dañuy dañuy yàqal ñeneen ñi rek voilà te góor su ne war naa moytu loolu quoi. président lan ngay wax waa Ceddo. bon waa Ceddo maa ngi leen euh, ñu wér ak dara bañ leen daal ñu ñëw fubal ci jàmm yàlla may ndam kenn ki yàlla ma ko yàlla may bu ko defee ku ci ne ñibbi ci jàmm ñu bañee def benn violence parce que ñun ñi après ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi vraiment man loolu laa gis quoi. merci président dégg ngeen président lu mu wax toujours euh, même moo mooy ñëw rek mooy non violence donc euh, président woo na quartier am woo supporter yi ne leen que ni match bi neen ko joué si fair play euh, ñu dem nag xool. waaw salaamaaleykum coach su tur la. man maaleykum salaam maa ngi lay nuyu di jox sa wàccuwaay ma Diop Diop. adjoint coach Gounas. Euh, Madiop Diop yaay adjoint coach Gounas. Euh, coach nan demi-finale bi. waaw préparé suñu match rek. waaw liggéey détermination ñu liggéey ak préparé suñu match pour aller gagner le match incha allah. bon coach moo xoolee équipe équipe allah kon mën nañu wax ne ni pare ngeen ak waa Ceddo. waaw waaw ñun pare nañ nañ bu sax. waaw match bi moom dañuy xaar le jour ji rek ñu dem joué ko waaw def li ñu war a def yàlla may ñu ndam incha allah. Euh, coach est-ce que xam nga Ceddo bu baax. waaw waaw xam naa xam nañu Ceddo bu baax a baax waaw yàgg nañu yàgg nañu tase waaw yàgg nañu joué joué nañu ay quart de finale ay demi finaal ba tey ñuy soo waat joué waat ak demi finale waaw yàgg nañu tase ak moom quoi xam nañ ko bu baax xam nañ Ceddo xam nañ li mu capable ak li mu capable waaw mais ñun suñu bopp lañ gëm quoi dañuy liggéey ñaan yàlla may ñu ndam ci match bi incha allah. coach lan ngay wax euh, euh, supporters yi. waaw ah, supporters yi dañ leen supporters dañ laaj ñu mobiliser wu rek ñëw pousser seen équipe waaw match bi 90 minutes la ñu taxaw supporter seen seen équipe ba match bi jeex incha allah yàlla may ñu ndam ñu ñibbi si allah. merci coach bon ñu ngi nii ak euh, capitaine ASC Gounass salaamaaleykum capitaine. waaleykum salaam incha allah. capitaine tur la. Ousmane Seye. Ousmane Ousmane Seye yaay capitaine Gounass. mais Ousmane nan ngeen ni préparer ma sen demi-finale ak euh, contre Ceddo. wa ah, balaa dara ñuy ñuy ñep di remercier di len encourager di len sant ci déplacement bi ngeen def ni di wax ni waaw demi-finale mom ni ngi koy wacc comme doon waajee suñu match yëpp waaw di wax ni tamit dañu na match bu important sur le plan tactique physique moral on est prêt quoi parce que ASC gonas ASC bu mag la ñun am habitude di jouer xana demi-finale di ñaan yalla yalla may ñu dem

amul jarul ñu koy présenté parce que boo xool palmarès Guédiawaye doo ci doo ci génne Ceddo jël na zone jël na départemental waaw du yomb daal parce que équipe mag la ñaari équipe mag mun naan ñooy daje ndax gars yi sañu bëri ñu naan affiche bi affiche finale la kon yaakaar naa ne kon match boobu mënul yomb. mais euh, capitaine lan ngay wax supporters yi ak euh, violence bu am si stade bi lan nga ko gisee ak lan nga siy wax. violence moom ça ça rime avec sport mais. ASC Gounass ko xam ne xam ne ASC Gounass nekk équipe boo xam ne équipe bu violent rek parce que ñun dañ boo ñu gañee ñu ñu ko yàlla dañuy ñibbi suñu gañee dañuy sënga ñu loolu ñu xam parce que chaque année dañuy bokk ci meilleur supporter Gounass ko xam xam ne nekk équipe boo xam équipe bu violent la te ñu parce que moom bu boole warul warul boole moo tax a ñaan yàlla xam nga violence bi nu mu gën a wàññeeku gën a arrangé ndax sport moom dafa war a boole quoi waaw Eh, capitaine lan ngay wax si Guédiawaye info waaw Guédiawaye info nice na nice na rafet na ñu ngi koy moom ñu ngi yàlla ñu ngi koy rafetlu quoi nice wax Guédiawaye info ci kanam jaajëf capitaine euh, dégg ngeen capitaine bi lu mu wax capitaine bi capitaine buñ musa dem rek danaan ñu non violence non violence donc ñu ngi woo supporters yeeg waa Guédiawaye yëpp ñu bàyyi violence si stade bi parce que violence amul benn njariñ te du ñu jëmale kanam bon ñu ngeek euh, ñu ngi ni ak président supporter ASC Gounass euh, salaamaaleykum waaw onze bilaay bi seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim. mais tur bi nan la. Cheikhouna Konaté. Cheikhouna Konaté yow yaay président supporter ASC Gounass. Euh, Cheikhouna Konaté nan ngeen di préparé seen mat waaw ñi ngi pare match bi bu baax entraîneur bi def na li mu war a def joueurs yi def na ñi ngi def li ñu war a def ñëpp ñi ngi def li ñu war a def mais ñun supporters yi tamit ñi ngi def li ñu war a def mu ñëw di assister suñu équipe ñuy préparé ñuy toog leen bon mën na ne équipe euh, supporter yi pare neen mais Gounass ku ko xam xamee ko supporter mais ana zëngal bi. non xëy na tey bi ngeen di ñëw da ñu bett mais démb gars yi yëngal nañ te suba dañuy yëngal gannaaw suba dañuy yëngal ñun dañuy entraîné semaine ba keroog match bi dañuy yëngal. mais président président mën nañ ne stade bi mën nañ gis ni ni chaque match day am violence. Euh, te violence ku ko xam xam na ni baaxul si nawetaan mais lan ngeen mën a wax si violence ba violence du am si match yi. non man moom wax dëgg fa yàlla samay supporters yi nekk fii ASC Gounass ñun yàgg nañu waxtaan ak ñoom ci affaire bu mel noonu chaque kii dañuy def réunion supporter bu mag ñëpp ñëw ñu sensibiliser leen ci loolu. def nañ ko defati ko defati ko comprendre la ñun kon musuñu yàq mas te ñaanuñu yàlla yàqati ko ñun nañ fuubal ci fair play ci jàmm ak salaam ñëpp pour que c'est le ngay wax supporteru ceddo yi. li ma leen wax mooy ñu. dal ànd ak jàmm ñu ñëw ñu fubal ko ci fair play ku nekk dem ñibbi. Euh, lan nga mën a wax si Guédiawaye info. waaw ñu ngi leen sant di leen gërëm waaw xam nga Guédiawaye info moom suñu yëf la quoi waaw suñu yëf la parce que tamit ñun buñ dëkkee Guédiawaye mu dëkk mu nekk Guédiawaye rek suñu yëf. bon dégg dégg nga président supporter bi lu mu wax président supporter bi nee na mi ngi woote si non violence. donc Guédiawaye gi yëpp ñu ngi leen di woo non violence parce que Guédiawaye ku ko xam xam ne Guédiawaye dunduñ violence xamuñ di ñaan yàlla nu mu wootee supporters yi supporters yi Ceddo tamit déggee ko noonu euh, ba jour match bi incha allah jërë ngeen jëf.